mais Belia sa jàngat ci yenn turu presse yi ñu dégg al al umaan al nangam ay affaire yu doy waar yoo xam ne mhm. man mosuma ko nemmeeku ci Sénégal quand maa ngi koy soog a gis nag. yenn train am na. train hmm? moom kay am na yeneen yoo xam ne boo ko saytoo ci list bi di nga ko ci gis te mosoo koo dégg mosoo ko gis fenn. Euh, Madiambal Diagne moom ci 8 millions yi mu toll moom lay méttitlu ndax observateur féetee ca kaw am 15 million Alioune Badara. waaw moom de nee na maa ci gën a ndawle. moom moo ci gën a ndawle ñi am 1 million 2 million nag Aline Badara yaa ngi koy gis observateur moom 15 millions la am wal Walf Quotidien am 6 million Stades am quinze million borom Stades moom bërki démb moom moo ne day day day day ci. Mamadou moom joxoon nañ ko tool ci 15 millions gis nga Aline Badara ñu waxante dëgg rek et bi ñuy joxe am na ñu koy yelloo te joxuñu leen ko. am na ñoo xamante ni seen i borom Alioune Badara ñoo ngi jàppandu maanaam ci seen poos seen gafa la ñuy jëlee li ñu am pour di fay seen i seen i gafa la ñuy jëlee li ñu am pour di créer ay plateau di def lu nekk te ñooñu amuñu et am ñoo xamante ne Alioune Badara yaa ma neex la amee et am ñoo xam leer na leen ni liggéeyuñ ci réew mi li tax ñu boole leen war leen boole ci presse gis nga tey buñ demee bay dégg tur bu nekk ay euh, al umma ay lu nekk ñu koy dégg ñan ñoo moom borom ñan ñoo moom euh, presse bi ñan ñoo leen moom. kenn xamul sànq bi sa garaawul mais bu sànq bi nga xamante ne ci 2 millions lañ toll ak ci un million lañ toll ñooñu tur yooyu noonu Alioune Badara <laughs> man damay laajte ndax tur yooyu am na existé na xaalis bi fan la doon dugg mi ngi noonu xoolu tur yi nii yëpp. bi da maa ngi gis ay Africa Dream ak ah. info du jour fësal Dakar sport point com Réveil Dakar Dakar news point sn Dakar musique point com am na Touba news ah. monde Afrique point com Africal news point com mm-hmm. acti Diaspora TV news Diaspora Sawaja Diaspora l'intelligence point com info du jour sn. fësal point com dunia 24 point com. ah Bour News moom. Bour News point net. jot na ah, gi moom ba du sama waaj non non moom fësalam wolof la ko bindee. waa waa laa ko tegoon sax Ahmadou Bamba. Hmm, hmm. dental point sn. Touba News. météo active seen origine seen gis nga tur yooyu noonu yëpp. ndam li point sn. man de su ma yëgoon ma créé ABS. waaw mi ngi noonu boobaa sax da ngay am ndax xam nga lu tax Alioune Badara man jàpp naa ni am na ñoo xamante ne baa xam nga ne Alioune Badara réew mi bu ñu soxlaa bu ñuy dund ay problème mbënd mii ñoom ñoo koy wane ñoom ñooy wane ni jeunes yi amuñu liggéey ñoom ñooy wane yu bëri yoo xamante ni ñun moom la ñuy dund. ñooñu noonu ñu bëri gisoo seen tur fii am ñu et. Feeling Dakar. am ñu et. nga gis ñoo xamante ni Alioune dara da leer ni ñoom seen i patron rek mën nañoo fay seen i employé normalement ñu leen di jox ay et. moo tax mu su nit toogee ne kii da matale na impôts yépp moom macha allah kooku war na koo mën a matale. ah parce que ñoom jot nañu vingt six million xoolal lu toll ci loolu. ñuy dund noflaay te pourtant yaakaaruñ ci YouTube Alioune Badara am na ñoo xamante ni dañuy joxe ay information normale dañuy def li ñëpp di def normal ah, gisuma fi ay Sénégal 7 ay Feeling Dakar te pourtant Alioune Badara ñooñu noonu bokkuñu ci et bi waaw ah, te ñuy def liggéey bu doy te pourtant YouTube ñoom rek la ñuy seetaan baax sax askan bi ñoom rek lañuy seetaan diaspora bi bu ñu bëggee xam lan moo xew seen réew ñoom rek la ñuy seetaan ah seen teraanga ñëw na bokk. ñu ñëw bokk pourtant ah, ñooñu amuñu aide. non ah, jamais. ñan ñoo am aide. on yi ñan ñoo ko am ñi ko am est-ce que yelloo nañ ko gis nga nit boo koy dimbali day fekk ni yelloo nañu dimbali ko benn nga récompenser ko wala ñaar nga jàppale ko pour mu sukkaliku ñaari façon aide yi moo am yenn saa yi nit liggéey ci réew mi loo xamante ne jar nañu aide ko yenn saa yi nit liggéey mu leer ni boo ko dimbaliwul pour gafaam diis. ña fay liggéey dinañ dem au chômage nga jàppale ñooñu pour ñu liggéey mais tey am na yenn yoo xamante ni lii bu génnul woon lu bëri duñ ko xam moo tax saa wolof wax sànq naan du yi kese de yu bëree baree bëri dossiers yi daa bari yi teg ci taabal bi yaakaar naa ni procureur Ibrahima Ndoye moom Alioune Badara am na liggéey liggéey bu mat a liggéey nag moom mi fi moom mi fi wuutu kii di Abdou Karim Diop am na liggéey bu diis ndax boo fàttalikoo ci ginnaaw. 70 yi ñu tuddoon jotoon a tudd yi ne ins bii nii rapport yooyu nëpp jot nañ leen a dajale ba pare mais ki nga xamante ne mooy wuutu kii di Abdou Karim Diop moom lañ koy teg ci taabalam fal nañ Ibrahima Ndoye moom dina lijjanti problème yu bari mais alin ba Badara lii nii as tuut la ci lëf li dinañ dem a dem a dem ba nga xamante ni yu bari dina génn loxo dina ub gémmiñ xaw ma loxo dina dar gémmiñ te tibb yóbboo ko te Alioune Badara dafa am ñenn ñoo xamante ni bu ñu meree kenn ma jabal jaañ mii bu mu mere kenn ndax moom day jàmb nu mu ko neexee te 8 millions yi mu ci jot a am na ko sante yàlla am na ñu ko fi gën a yëgee ci réew mi te amuñu 8 million yooyu convention yi nag ba dara am na ñoo xamante ne état daf leen war a fay ndax am na contrat yoo xam dagg nañ ko am na ñoo xamante ne ba tey dese nañ leen xaalis waaye danga dégg ñu yuuxu wala da dégg ñu ne nañ dem ci yoon am na bërëbu liggéeyukaay yu bëri yoo xamante ne signé nañ ay convention ak ay euh, ak ñu nekk ci presse bi ñoo xamante ni da leen leer lañ ko signé Alioune Badara yaa ma neex la mooy Alioune Badara mi ngi sama côté xaaral ma jox ko xaalis ndax bu toogee ci palaatoom dina ma mën a waxal dina ma mën a setal dina mën a jàpp si samay liggéey ba nga xamante ni seenam boobu noonu képp ku ma compte du fa ñëw boo xoolee am na ñu bëree bëree bëri Alioune Badara daaw ñu recevoir opposition bi seeni chaîne am na ñu bëri ñoo xamante ne daaw ñu pouvoir bi chaîne chaîne te loolu noonu c'est pas du tout normal mu ñu fay la xaalis jox la convention ak ñu jox la aide moo ci yamale convention na mën nañ comprendre ndax liggéey la tey Alioune Badara dama laa fay 8 millions mais 8 millions yi yow danga may jàllale si sa télé samay publicité loolu liggéey la mais aide bi ngay dégg ay tour bu nekk ay fësal ak ay ay ay ay tur bu nekk ngay dégg info du jour tur bu nekk ngay dégg boo xamante ni yow lan nga mën a sukkandiku ci loolu ne ñoom ñoo ngi liggéey ci réew mi loo xamante ni mën nga see dut sa baaraam ni ba dara ñii si presse bi lañ bokk. Hmm. man loolu rek laay laajte man nangu naa nga ni ñii si presse bi lañ bokk ñoo ngi liggéey kon ñii yelloon nañ ñu aider leen. Hmm. mais yow koo xamante ni xamoo ko ñu bëri ñoo ngi naan carrément su ma yëgoon sax man tamit ma créé mais li buñ ko fësalee Alioune Badara dañ ko war a fësal. ñu xam régime bi fi nekkoon moom fan la doon dugal suñu xaalis. jàpp naa ne lii c'est pas du normal am na ñu ko yelloo te joxuñu leen ko. d'accord euh, am na question boo xam ne aussi Saa Wolof gars yi ñu ngi koy posé di wax ni euh, aide à la presse yi ak convention yi ñuy gis nga xam ne yaama neex la est-ce que nguur gi fi nekk itam duñu dem ba juum doxalee ko comme nii rek maanaam. am na presse yoo xam ne ñu ngi commencé nag di feeñ di wane ni ñoom fii la ñu far dañoo wane seen appartenance am na ñoo xam ne nag moom dañu équilibré